أعوذ بالله من سميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جلدي بوك تالبي سين yi تالبي من يوخ mu ñuy wax Masamba Sill moo تايتي ak مكني dund ak jaar-jaari mag magi murid yi muy siratu kibaari atbaa'il muridin muy mag ñi nga xam ne ñoo joxoon seenu dund Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim jëloon seen lépp jëloon seen ñëpp jox ko Serigne Touba Seexul Xadim topp ko te dég déglu ko te mosuñoo mooy ndigalam ba tax ñu dégg ak ceex maanaam ak ceex muy seexlu lu bon Serigne Touba boole leen ak mbooloo mag ñooñu lañu tànn kenn mbokk yi ci ñoom ngir waru ko waxtaane mu ak ab tënk ci ab dundam di lu néew ci ab dundam digganteem ak sëriñ tubaa xaddim kookee mooy sëriñ baara faati mbooj muy sëriñ baara gay di sëriñ baara faati mbooj bu ñu ko waxee xel yi dem ci jëmm ju tedd ju sell doonoonub xalifaam yàlla dogal sunu boroom moom ko ñu denc ko ci bisub mbàkk màggalu mbàkk kajoor ca Taif muy sëriñ Moustapha Gaye rahmatullahi alayhi sëriñ Moustapha Gaye bokkoon ci kenn ci seexi sëriñ Mbàkke Muhammad yi jiite woon seex si nekk njiitu seex si di nuyu di ziar baax ab xalifaam di sëriñ xaadim gay di ko ziyaar ak di ko jaal woy juróomu tedd wu sell woowu nga xam ne fu ne dégg na fa ngërëm dégg na ngërëmul sëriñ tubaa seexul xadim dégg ngërëmul sëriñ muhammadul mustafa dégg ngërëmul sëriñ Cheikh Ahmad Mbàkke Gaynde Fatma dégg ngërëmul sëriñ Mbàkke Muhammad dégg ngërëmul mii nga xam ne moo doonoon wasiilam jëmm ju tedd jooju la ñuy waxtaane woy juróom muy sëriñ Baara Faati Mbooj kan mooy sëriñ Baara Faati Mbooj ñu gën koo xam ci sëriñ Baara Gay mi ngi gane àddina 1876 ci dëkk bu ñuy wax jëmmooy gay jëmmooy gay ca njàmbur jëmmuy gay googu mooy cosaanam kan mooy woy juróomu góor woy juróomu góor mi ngi tudd sëriñ moor simna gay di sët ci sëriñ baara anta mbaj sëriñ baara anta jóob ku bari woon xam-xam la moom baara anta mbaj jóob jàngal na kilifa yu bari way juróomu jigéen mu ngi tudd soxna faati mbooj bokk ci askan askanu mboojeen sëriñ baara gay nag way juróomu góor moo ko dalal alquraan way juróomu góor ko dalal alquraan ba mu sori mu jox ko sëriñ yuusufa gay maami Serigne Mouhamadou Rachid njay Serigne Youssoufa gay maami Serigne Mouhamadou Rachid njay mu agalel ko alquran jangal ko len ci ay téré xam-xam mu jóge fa dem ngiig ci Serigne Mayoro Fall ngiig mu jóge fa dem ngiig ci Serigne Mayoro Fall fa la àggalee xam-xamam géeju ci fànni xam-xam yu bari tawute wuute wax nañu ne bind na alquran wax nañ ne bind alquran buy bind alquran da koy tari buy bind ci kaw di tari di tari ci suuf maanaam buy bind alquran ci kaw day tari ci suuf buy bind ci suuf di tari ci kaw ku kiim ku kiim tànne la woon loolu mooy am njàngam aku askanam waaye digganteem ak sëriñ tuubaa sëriñam Seexul Xaddim sëriñ Baara Gay mi ngi jébbaloo Mbàkke Kajoor Serigne Bara Gaye mi ngi jébbaloo Mbàkke Kajoor kon bokk na ca ñu njëkk a ñëw ci sëriñ Touba booba Serigne Touba fa la nekkoon moo xaritam Serigne Mouhamadul Amin Gaye Firdawsi mu jaayante ak Seexul Xaddim di ko liggéeyal liggéey ko liggéeyal waaye liggéey bi fi mu jëmoon mooy di ko jàngaleel Alquraan ko liggéeyal waaye liggéey fi mu jëmoon mooy di jàngaleel Serigne Touba Cheikh Khadim alquran kon li sëriñ Touba gën a bëgg muy alquran mbooleem li mu am ci la ko am ca loole la doon liggéeyal Serigne Touba Cheikh Khadim di ko bindal alquran di ko jàngaleel alquran ak xam-xam jàngal na kilifa yu bari ak di ko bindal. bindal na sëriñ bi fanweeri kaamil ak ñett bindal na sëriñ Tuubaa fanweeri kaamil ak ñett yenn yi jëm mooy la ko binde yenn yi njaareem yenn yi daaru gay sëriñ bi yóbbu woon na ko gànnaar mu fay jàngale xam-xam wax nañu ne jàngal na fa kilifa yu bari bokk na ci sëriñ Mouhamadul Amin Diop ad-Dagani ndax sëñ Tuubaa bokk na ci ñetti baara sëñ baara Fatim Mbodj bokk na ci ñetti baara yim daan tiitaroo daana wax ne sama ñetti baara yi daan leen tagg lool ci mbaax muy sëñ baara Fatim Mbodj ñuy waxtaane tey ak sëñ baara xarifaal muy sëñ baara gay ak sëriñ Mohammed Gay Firdawsi ñetti baara yooyu wax ne sama ñetti baara yi daan leen tiitaroo ba tey sëriñ baara daana yóbbul sëriñ bi daana yóbbul sëriñ bi ay mbànd mbàndi ndox daana ko yóbbul sëriñ bi daana yóbbul sëriñ bi ay mbànd yuy def ndox ci njaarim sëriñ bi moo ko daan sant bokk na ci ña ko daan yanu sëriñ Manta sëriñ Mbay Mbóoj sëriñ Aliyu Sàmb sëriñ Sàmb sëriñ Sàmb Jaardi sëriñ Mor sëriñ Mor bu samb sëriñ Omar sëriñ Mbàkke Mbóoj ak ñeneen dañ ko daan yenoo Daaru Gay ba Njaarim diggante bi war naa mat téeméeri kilomètre mag ñi ñu amoon pas-pas lañ ñu jàmbaare woon lañ daana wax nañ ne mat na téeméeri kilomètre ak lu topp wax nañu ne mbànd yooyu sëriñ bi da ko daa duylu suñ xëyee fekk ñu ñu naan lépp sëriñ Tuubaa da daan duylu mbànd yooyu ba mu fees bu ñu xëyee fekk ñu naan lépp moo tax bàyyi seexu sàll mbàkke nee na moom bokk na ci ña ko daan duy nee na mas na caa jëfandiku duy koo pare naan ci sëriñ bi woolu ko laaj laaj ko laaj ko ku ci jëfandiku sëriñ Tuubaa woo ko laaj ko ne ko ku ci naan ku ci jëfandiku mu ne ko man mu ne ko soo ko duyetee bu ci jëfandikooti ndax mbànd yépp ñi ngi sàbbaal sama borom ba mu des mii mii nga naan rekk moo sàbbaalut borom bi subhaanahu wa mu tuur ko duyaat ko sëriñ Moustapha Abdou Khader nee na ñi ko daa duy duñ ëpp fukki nit ak ñaar mbànd yooyu ñi ko daan duy daawuñu ëpp fukki nit ak ñaar sëriñ Baara Gaye sëriñ bi mas na ko woolu ba mu ñëwé mu di ko watloo sëriñ touba mana ba mu ñëwé ñu di ko sëriñ touba daana wax ne mom sëriñ touba baara mi de kum wat suñu borom jéggal la suñu baara faati kum wat suñu borom jéggal la ba ko cheikhul qadim dox fekk na sëriñ am sut joxate sëriñ am sut joxate ne ko ndax am ndigalul mu di ma wat ngir lan ngir wax gi ko Sëriñ Tubaa wax rek ku mu wat ñu jéggal la moo tax Sëriñ sëtu Jaxate doon ca barkeelu moo tax am na kenn ci ñoo ci ci doomi Sëriñ eh, Sëriñ Baara yi ku daan wat Sëriñ sëtu mooy Sëriñ Moustapha Gaye mi moo waxoon doonoon xalifaam te wàccu bu liggéey ci semaine yi passé wax nañ ne daawul def dara te tegu ko ci ndigalul sëriñ bi sëriñ Bara Faty Mbodj mësta def dara te tegu ko ci ndigalul sëriñ Tuubaa ku bëggoon sëriñ bi la bokk na ci dëkk yi mu sañc yi nga xam ne sëriñ Tuubaa ko jox ndigal mu sanc ko ci mu sanc ko ba ca gën a fés mooy Daaru Gay Daaru Gay mooy dëkk yi ca gën a fés mi ngi ko sanc ci digelul cheikhul khadim dan fayar dan fa jangale alquran ak xam-xam di fa defar ay nit di len tarbiya ña fa manam maanaam ñi nekkon ci daari tarbiya bokku na ca serigne mantu job serigne mantu job mom dañ nan sax mo doonon jeewriñ ja serigne mbay sëriñ Aliou Samb sëriñ Samba di sëriñ Mor bu Samb sëriñ Omar Thion sëriñ Mbacke Mbodj mat nañu ab lim ñii moo leen defar samp leen sampal leen ay kër ñu ne ca mu jox leen ay doomam sëriñ Tuubaa mas na koo dénk moom Serigne Bara Faty Mbodj ay abiyaat yu am solo mu ne ko bis mu ne bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala muhammadin wa sallam mu ne ko mu ne allahu yudibu anka alxamma walxasana dunya wa oxra bi man qad dawaxa alwathana Sëñ Tuubaa ne sunu boroom yóbbu na ci yow njàqare dàq na ci yow njàqare dàq na ci yow njàqare àdduna ak àllaaxira ci daraja yonent bi nga xam ne moo toroxal xërëm yi maanaam moo daaneel xërëm yi moo daaneel xërëm yi suñ tubaa ne ko atqanta saayaka iqaanan farixtu bihi fallahu yuslixu minka sirra wal alana wóolu nga sa jëf kóolute goo xam ne bég naa ca yàlla yàlla yéwénal sa mbóot li nëbb ci yow ak li feeñ yàlla na ko yàlla yeweenal mu ne amiinu la zilta daa amnin huna wa gada maa al amaanati xatta tudrikul umana aji wóoru nga ku wóoru nga dañoo di am di am kóolute àdduna ak àllaaxira ak sécurité ba keroog ngay daj maanaam ngay dajeeg ngay dab way ko maanaam ñi nga xam ne dañoo amoon kóolute suñ borom da leen a joxoon amaana muy nit ñu baax ña منك أمين لا زلت مامونا على عمل فالله يكفيك ما تخشى هنا وهنا منك كورغ دنيو كم سيكريتي دنيو دي أم سيكريتي تسب لغي يالنا ليالا فغل لنغ رغل تي أدنا لنغ الله خير الله أكبر سنتو خذ المكافات ممن لك يطلب ما به تفوز كما تعلو به القرناء sëñ Tuubaa ko jëlal neexal yi jox ko képp koo xam ne day sàkku ci ak texe comme ni nga gënee kawe sag maas sëriñ sëriñ bi muy sëriñ Bara Faty Mbodj mi ngi génn àddina 1951 ci jamonoy sëriñ Fàllu mu ngi génn àddina 1951 ci Touba. ñu denc ko ca Tuba ca wetu magam xaritam Cheikh Mouhamadul Amin gay Firdaws kookoy Serigne Bara Gaye yal na nu yàlla yal na ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te yàlla yàggal fi ab xalifaam ak mboolem xalifa yi nga xam ne ñoo koy wutu والسلام على من اتبع على من اتبع الهدى allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sallim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne lu jub ci kàddu yi ci borom bi subhanahu wa taala la lu ci dëng sunu ñàkk xam-xam la ak sunu gàtt fasaxa di ko jéggalu ay sëtam di ko jéggalu ak njabootam di wax ne leeral dunduk mag ñi dong ñu taxoon nu jóg ngir mag ñi man cee jariñu maanaam ngir ndaw ñi man cee jariñu maana maa yatawalladu minhu lay juddoo ci wax ji moo nu amal njariñ ngir ndaw ñu mën a jàng ci mag ñi ak taalibe ndax ku ne xam ne ne royukaay ci jamono ji ñu nekk réer ne mër kenn mënu ko am fenn kon ndaw ñi jaaduna na ñu delluwaat ca salafu salihin ci mag ñi nga xam ne ñoo toppoon Sëriñ di ko liggéeyal liggéey bu mucc ci ayib kon ñooñee war nañoo indiwaat seen dund seen démb di ko diraase di ko jàngaat ngir ndaw ñi mën cee jariñu kon loolu mooy sunu waxtaanu tey di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen mbokk Masamba Syll di dong di taalibe bu xeebu moo leen ko doon defal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf